tànk yi nu ñëwee Tiwaawan nii ak délégation bii ma àndal di délégation LD yéen a ngi am porte parole parti bi waaye ay jigéen ak ay góor ñu jóge ndakaar ak ñu jóge cees ñëpp di ay kilifa ci parti bi dañoo ñëw pour ndokkeel si waa kër Maam Alaaji nga xam ne euh, tariixa Tidiane fu mu toll ci Sénégal yaakaar naa ne tey jii ñoom ñoo ko fa yóbbu ñëw fii Euh, ziyaara indil sëriñ bi sunu ñaan ndax xam nañu ne xeebu ko nu koy ñaanal yàlla gudd fan euh, ak wér waaye itam sàkku ci moom mu ñaanal ñu ñaanal sunu parti ñaanal réew mi ñaanal njiitu réew mi bu ko defee yàlla may nu jàmm musal nu ci lépp luy lore lépp luy yëngal àdduna te di yàq yàlla musal ci Sénégal ni mu ko ci muusale woon ba léegi te nu yaakaar ne ñaanu mag ñi doon na ci dara mag ñi nag li nu yoroon dañu ko batale ay nit te ñi ñu ko batale ñoo ñu mel ni ñoom ab du nga xam ne euh, boo ñëwee euh, toog ak ñoom jataay ba dafay doon ay fàttaliku ay jàngale loolu la naw ba tax ñu duñu rëcc duñu rate mukk euh, occasion wu ñëw ci gàmmu gi siyaara ñaan ñaanlu waa message sëriñ bi day euh, daanaka lépp wax la lépp jàngale la euh, jàngale ci nu nu war a dëkkandoo jàngale ci euh, ay ay ay nu nu war a yaroo ak nu nu war a yare loolu defe naa ne bu nu ko saxalee rek dañuy suuxat diine dañuy suuxat ngor kon dañuy suuxat sunu réew te loolu la la ñuy jàngat chaque fois bu ñu toogee ak moom. ko ñaanal fan wu gudd comme ni ma leen ko waxee euh, li xale yi naan yal na fi yàgg te wér yal na ko dal euh, dal ñu ñun ñëpp ndax yaakaar naa ne seen yàgg fi ak seen ay ñaan dafay doon njëriñ ci senegal